Hmm, alors beneen qui parle de Rufisque Diamniadio mais Rufisque est mort ndax pôle bi ndax péage bi Rufisque dafa nekk ci benn trou et si on fait pas attention dañuy suul ñun ñëpp et malheureusement noo lii qui sont à Rufisque defuñu dara et c'est dommage et c'est dommage moo am hmm. jubawuñu ànduñu ndax ki nga xamante moo fi nekk le président de la République loolu nag dañ ne moo far a jeex mooy que ne pour mu jeex les élections locales yi di ñëw incha allah muy man ak samay morom ñun ndaw ñi ñooy téye les maires yi. mais bi ngeen comprendre loolu lan moo tax si élections locales yi. merci beaucoup ngeen participer si. ñu participer si. ci élections yi pour mën a jël maire bi. waaw mais non attends nit pour nga nekk si mbir da ngay jàng man yàlla def na au moins bi mooy sama deuxième mandat sama premier mandat j'étais président de commission artisanat culture tourisme bii aussi la même chose. je suis président de la commission artisanale tourisme culture mais deux ans yooyu ma def doy na nag pour au moins nag man ak samay morom yi nekk Tëngéej ci jeunes qui sont là-bas ñu au moins ñu téye les maires mhm.